mbokk auditeurs yi jër ngeen jëf ci déglu bi ngeen ni feretal duy déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di baaxoo di déglu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dal ki nga xamante ne moom moo di Mamour Ndiaye Mamour Ndiaye nekk infirmier d'état waaye tamit nekk chargé de la communication SUTSAS section hôpital principal bu Dakar Mansour ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye tamit di rafetlu nangu bi ñu nangu. wuyu ci suñu invitation bile. waaw ah, jërëjëf euh, soxna si bégte bi ñun la revenir parce que euh, c'est pas donné à n'importe qui ñu invité la ci benn plateau par rapport ak euh, benn situation bu xew pour nga mën a de nit ñi par rapport ak à la situation. Mm-hmm. donc ñun ñoo leen di gërëm. gërëm bi ñun ñun ñun ñun la yàlla. tey nag euh, dañuy wax euh, lépp lu soxal fonctionnement wu hôpital wu principal hôpital principal nag xam naa ne ñu bëri ci askan wi xam nañ ko bu baax a baax mais tey jii dafa mel ni am na ay jafe-jafe yu jéggi dayoo yoo xamante ne boobu le hôpital ñu ngi koy jànkonteel ñu daal di tàmbale ci premier point bi rek apparemment hôpital principal dafa am benn dette yoo xamante ne ci xayma ñu ngi koy estimer ci lu ëpp dix milliards. tey jii rek euh, boo ñu ci doon dellu si ci plus de détails ci ban pàcc donc euh, la dette bi am ba mu toll ci somme bu ni mel. waaw côté boobu ñu leen di di gërëm di leen di leen sant. ku xam hôpital principal xam ne hôpital euh, public de santé la. Mm-hmm. mais à caractère spécial. maanaam boo xoolee dañuy bind ci suuf hôpital d'instruction militaire. loolu moo ñu différencier. Mm-hmm. moom mooy la gestion revient aux militaires. benn mais boo xooli jëlee lu mel ni hôpital principal y' a mille cinq cent civils militaires yi cinq cent lañ ci côté boobu hôpital principal boo xoolee eh, militaires yi ñoom ñëw ko gérer par rapport à la situation donc ce qui fait que dette bi ñuy évoqué on parle d'onze milliards donc c' est des chiffres qu'on a pu regrouper. Mm-hmm. mais c' est luñ ko ameel la loo xam ne état bi daf ko gàll ci loosam. rien que CMU ak IPRES li ñu ko yoreel ci xaalis rek kenn xamul nu mu doy. Mm-hmm. donc te xam nañ ni lu day ne hôpital principal amul euh, financement boo xam ne état bi daf ko koy jox comme yeneen kii moom li muy produire moom ci lay fay borom ci lay fay fournisseur am ak li muy yore fournisseur yi. donc situation boobu moom moo taxaw ba nga xam ne ñun bu ñuy évoquer c'est par rapport ak à la somme. Mhm. qu'on lui doit et en plus la somme aussi qu'il doit aux fournisseurs et à l'IPRES et autres. Mhm. par rapport boo waxee IPRES ñun man tey ji damay liggéey parce que bëgg naa ñu may verser retraite pour ëllëg su ma demee retraite. ma mën a am akus tuut bu ma fa fekk te su fekkee ne tey jii hôpital day fonctionner te du ma versel man tey jii su ma demee retraite damay am problème donc yooyu moom moo tax ñu boole ko ci mbir mi pour alerter l'opinion mhm. par rapport à cette somme ku wax hôpital militaire wala truc c'est la grande muette am na leen loo xam ne militaire bi mënu ko wax ñu civil bi ñu ñoo ko mën a kaas wax ko nguur bi nañu yoral ngeen ñu delloo leen ñu comme sax ñu mën rentre rentrer sur nos fonds mën a par rapport à à cette situation. Mhm. donc foofu la ñuy débloquer par rapport ak ak ces ces onze milliards. Mhm. yi ñuy évoqué. Mhm. mais onze milliards yi du benn domaine ah, certainement am na ay pàcc yoo xamante ne concerné na ko ba mu yegg ci somme boobu ndaxte onze milliards j'imagine que du somme bu tuuti. waaw dafa bëri ay pàcc. parce que boo xoolee des sociale bi. Euh, IPRES ci la bokk boo xoolee CMU ci la bokk. boo xoolee euh, euh, fournisseurs yi ci la ñu bokk. Mhm. donc loolu yëpp ci maanaam moom mooy moom mooy moom mooy budget pratiquement lu moom moo ko englobé. donc loolu la te ñun li ñu ci gën a yitteel moom mooy pour ñu mën a rentrer ñun suñuy fonds mooy ñi ñu yoreel te ñi ñu yoreel du kenn ku dul nguur bi. ñoom ñoom ñoo ñu xaw a mën a lottal trop parce que li ñuy wax rek dañuy envoyé ay malade comme jamono ji urgence mënoo récuser benn malade tu es obligé de tout prendre mais alors tu es obligé de tout prendre avec tes moyens mais à la longue boo paree nag pour régulariser facture boobu ça pose problème tu cours derrière des milliards. Mmh. les milliards là si tu cours derrière des milliards alors que hôpital bi moom la muy liggéey ci lay fay ay personnel am ci lay jënd matériel ci lay def amul subvention comme yeneen hôpital yi donc bu donc beneen point bi dina ñëw mooy travaux yi ñu tàllal ku ci wax loolu onze milliards ak travaux yi ñu kii donc yooyu yëpp jar na yuuxu pour wàllu moom moo waral ñu évoqué ko. Mhm. Euh, ci sa wax euh, Mamour Ndiaye yaa ngi xamle ne que euh, hôpital principal. ca njëlbeenam gestion bi ñi ko war a moom moo di militaire yi. Mhm. mais tey jii ñu dem ba ci nemmeeku ñi nga xamante ne moom moo di civil bi mhm. ndax lu ni mel du xaw a gàllankoor un tout petit peu le fonctionnement donc de cet édifice public. waaw foofu il faut que ñu leeral opinion publique bi. depuis que tubaab bi. initier ko parce que l'hôpital tubaab moo ko moso a yore. tout récemment kii mooy troisième euh, directeur bu bu bu bu bu Mame Thierno mooy troisième directeur bu ñuul bu fi ne. mais la gestion revenait aux Français. et revenait aux Français et les Français cohabitaient en parfaite harmonie avec les civils. boo demee hôpital bu mel ni Val de Grâce parce que ñoom seen structure yi noonu la demee boo demee hôpital bu mel ni Val de Grâce dafa am ay militaires am ay civils. mais boo xoolee ñoom sax tane nañ parce que ñun sax demoon nañ bay kaas ne ñun suñu statut est-ce que du am statut euh, euh, beneen boo xam ne ñun au moins on peut ñu rattacher comme des de de des des militaires mais civils. parce que boo xoolee lu hôpital bu mel ni Val de Grâce ñoom seen personnel noonu la mel. Mm-hmm. mais donc ñun li ñu différencier wu moom mooy hôpital principal c'est géré par des militaires mais. am ay civils yoo xam ne ñoom ils ont euh, la possibilité de dérouler leur activité syndicale à part. Mm -hmm. donc d'où revient le le le directeur de l'hôpital moom moo am tâche bu lourd parce que il aura la lourde tâche de gérer deux deux deux deux personnes yoo xam ne ñoom ñaar ñëpp bokkuñu statut. bokkuñu statut. parce que comme li ñuy wax rek dañoo am à l'habitude di tooñ militaire bi danga koy wax defal mu def alors que civil bi balaa nga boo ko waxee defal balaa moo def dina xool li muy def parce que dafa am lu ko tënk. mooy mm-hmm. code du travail. ñun ñu am accord accord d'établissement boo xam ne ñun ci la ñu tënku par rapport ak biir hôpital bi. Mhm. donc boo ñu bëggee gérer ni ngay gérer civil bi ak ni ngay gérer militaire bi bokkul yàlla dimbale nañu amuñu problème boobu parce que ñi fi xaw a jaar ñu ci bëri dañuy am aperçu par rapport ak loolu il faut dem jàngi au moins. Euh, euh, code du travail bi pour mën ñu gérer xam ñun suñuy activité syndicale ñun ne lii moom ñun suñu yoon moom moo ñu ko may ñoom lële la leen yoon may. Mhm. ba nga xam ne il faut savoir faire la part des choses tubaab bi réussir na ko ñiñ fi jiitu réussir nañ ko bien que ni du ñuy dem tuuti léeg-léeg mu am excès de zèle boo xam ne par rapport ak dañuy jaxase. Mhm. entre ni ngay gérer militaire bi ak ni ngay gérer civil bi te bokkul. Mhm. mais ñun on est toujours là en équilibre. mu mel ni deux poids deux mesures wala. voilà mais léeg-léeg ñàkk maîtriser texte bi la. parce que man tey jii militaire bi euh, comme ni ngay gérer garnison mooy ñëpp. les ordres, on les exécute à la lettre, sans murmure. C'est ce qu'ils disent, eux. Alors que man, tu me donnes une ordre, man, je réfléchis avant d'exécuter. Tout à fait. Parce que, ñoom dañ lay wax ne la l'autorité bi koy joxe après il sera responsable man nag tey jii man boo ma joxee ordre bu ma ci exécuter am naa responsabilité boo xam ne nan laa koy exécuter ak li ma code du travail wax ni ma koy defee. Mhm. donc ñoom côté boobu moo ñu kii mais ñun. on parvient à cohabiter avec eux. Mm -hmm. avec des discussions des fois léeg ñu xaw a jàdd ñu toogaat discussion mais bëñ ak làmmiñ ñoo ànd. chaque jour ñu xeex ak ñi yéegalaat fii ñi ba ñoom ñuy xam parce que ñun dañuy jàng ci ñoom ñoom tam dañuy jàng ci ñun te ñoom sax li ñuy jàng ci ñun moo ëpp parce que ñun dafa am lu ñu tënk lu bari loo xam ne bokkul ak ñoom. mu ngi mel ni liberté syndicale. Mhm. ñun bu ñu liggéeyee ba midi am nañ droit def suñuy activité syndicale en tant que délégué du personnel am na heure yoo xam ne bu la neexee yow mën nga génn sa liggéey dem dem dem lijjanti problème mu personne xam nga yooyu détail yooyu ki ngay jiite bu lu ko maîtriser wul xamu ko léeg-léeg mën na induire en erreur léeg mu ne la non euh, abandon de post bind wala nangam sangam nga référé wu ci par rapport ak benn article jox ko. Mhm. donc loolu moom it au fur et à mesure même bu ko jàngul woon buy dem dina dem ba dina dem dina dem ba da koy jàng da koy maîtriser. Mhm. donc loolu la léeg mu am nag ay rëkk rëkk yu ndaw mais ñun moom chaque jour on est en éclaireur. Mhm. waaw pour au moins li ñu yitteel rek mooy benn but lañ am hôpital benn but la ñu am muy hôpital principal mm-hmm. parce que dañoo am l'habitude di ko wax léeg-léeg sax dañ leen koy tooñee dañoo nekk ci bato boo xam ne lenn rek moom mooy différence bi ñii dañoo sol gilet ñii soluñu gilet ñii dañoo sol gilet ñii soluñu gilet mm-hmm. mooy ay militaire lañ nekkal ñoom sol nañ gilet ñun soluñu gilet bu ñu demee ba ci biir bato bi diig ñoom ñooy sauvé parce que tey ji ñun lu tax ñuy yuuxu militaire bi géré hôpital bi tey ji hôpital bu toogee toog toog ba si yàgg ne rës daanu militaire bi dañ koy affecté il agent de l' mhm. dañ koy affecté waat feneen. mais ki nga xam ne moom c' un contractuel de l' hôpital. par l' bu daanoo moom day bënni pot yalwaani donc moo tax chaque jour ñun ku ñëw direction bu ñëw amuñu problème ak direction. mais système lañ amal problème. Mhm. parce que ñun depuis toujours comme ça. Mhm. dugguñu ci léefu kenn boo ñëwee on te dañ lay jox benn temps boo xam ne ñeneen ñëw. dalal la wan la yoon wala truc à chaque fois bu ñu gisee lu ñu kii boo ñu tiilee seen bët dañuy ñëw fëgg ne la diw kat lii lii lii lii jox la sunu xalaat nii kat nii nga ko war a defee dem toog et c'est ce arrivé. Mhm. parce que tey jii mënoo nekk directeur pendant un an nga toog nit ñi dugal la plateforme pour mën a toog am benn au moins panel de discussion par rapport ak yow. un an amul sax feedback réponse par rapport à cette question peut-être on peut comprendre pandémie bi jaar na fi wala truc mais pandémie bi yëpp c'est des questions yoo xam ne c'est c'est d'actualité yoo xam ne mën nañ ko discuter ñun on peut donner nos une partition par rapport à la chose mën nañ ci jox suñu xalaat wala leen donc wala nga notifier ne ah diwkat sama yitte yi moom moo tax mais donc boo toogee benn oreille sourde rek ñun day mel ni ñuy gis suñu bopp te syndicat moom syndicalisme moom bu waxul rek du baax. Mhm. waaw moo tax ñu bind bindaat bind bi ñu bindee li ñu yoon may ñu def ko dugal préavis moom moo arrivé keroog. Mhm. après ci préavis bi nag am na lu ci am loo xam ne dañ koy déplorer. Mhm. parce que la liberté syndicale a été bafouée. comment waaw parce on peut pas concevoir nous on est trop administratif dañuy bind l'autorité compétente ne ko dañuy bëgg dañuy réunir tel jour mais suñu réunir jox nañ la préavis yoon moo ñu ko may avant ngaa dem grève da ngay def assemblée générale say membre nga ne leen lii kat lañ tënk direction waxoon nañ ko dañ ko bindoon dañ ko bindoon lii tontuwuñu dugal nañ préavis de grève à partir de tel dañuy dérouler suñu lii convier presse bi loolu lañu am mooy suñu lutte il s'est yoo xam ne ña ñaawlu nañ ko te xam nañ ne am na leen lu ñu sóor lu bëri bu loon feneen dina am neneen nu mu demee. Mhm. mais dañuy jàpp chaque jour ne outil bi ñu yitteel mooy hôpital bi. mooy les gens ils ont interdit la presse d'entrer au niveau de l'hôpital tout en disant que c'est un hôpital militaire. Mmh. ce qui n'est pas le cas l'hôpital n'est pas un hôpital militaire c'est un hôpital d'instruction militaire quand on parle d'instruction militaire c'est bu ñuy wax hôpital instruction militaire maanaam ñañu fay indi militaire yi. militaires yi nekk fii dañ leen fay indi pour ñu former leen côté médical foofu lañ leen di indee pour former leen. mu ngi mel ni nga ne CHU centre hospital université. Mm-hmm. foofu rek la étudiant nga nga mën a yóbbu étudiant bi. pour former ko sinon boo ko yóbboo feneen beneen structure mënul former parce que yaaka des professeurs. léegi nag bu ñu la wax hôpital d' instruction militaire les les médecins militaires et application foofu rek lañ ko mën a defee. Mm-hmm. du d' instruction militaire. tout du nekk hôpital établissement public de santé mais a caractère spécial parce que c'est géré par des militaires. tout à fait yooyu su amee nga ne hôpital bi hôpital militaire te ñun ñi fi jàll ñëpp. je vais le nom du général Momar Sène. boo xam ne sursace nationale avec Mballo Dia Thiam. am nañu rencontre jamono yi ànd gëzëm. bi muy gënee métti nga xam ne au niveau national la ñuy xeex. bu xeex bi gënee bi gënee tar. exprimer nañ ko dañoo am rencontre au niveau du délégué euh, kii local des délégués mu notifié nañu balaa ngeen di dem comme kii de presse bi ñëw leen maa leen invité ngeen sama bureau ma paye leen pot après bu ngeen paree ngeen dem. et bi ñu jógee foofu noonu avec le secrétaire général euh, national Mballo Diothiam dañoo dem suñu local délégué bi au sein de l'hôpital def fa suñu conférence de presse. Mhm. la presse était conviée ñu ñëw ñu wax te moom jour boobu lañ fa wax neexu ko parce que ci gestion la ñu tudd. mais c' est comme ça qu'on gère. te terewul accompagner na leen. accompagner nañu. Mm-hmm. parce que ñun c' est ce qu'on des acteurs sociaux on n'est pas là pour crier pour ma demba wala leen. Mm-hmm. ñun li ñuy wax mooy on sa base sur des arguments pour dire alerter wax nañ lii wax nañ lii la direction il est en mesure de répliquer. ñun on convie la presse pour dire des choses. Mm-hmm. ah c' est pas avéré non la direction convie la presse pour montrer des preuves que ni ah yéen kat ñii li ñu wax lii lii lii lii lii c' est parce que noonu la ñuy doxee c' est monde boo xam ne la nit ñi. ils sont euh, dañu dañoo am leen loo xam ne dañ ko gagné pendant des années donc bëgguñu am acquis syndical yooyu ñu delluwaat pour xeex entre lii tere nañ ñu ko lii déedéet déedéet. Euh, ce qu'on a déploré dafa dafa dafa doon looy loo xam ne après day mettre les gens la révolte parce que ñun li ñu am rek moom mooy xeex te xeex bi da nga koy jaarale yoon. Mm-hmm. bind nga autorité bi pour dajeeg moom pour am looy discuter sa wàllum liggéeyukaay mais autorité bi mm, joxu la nopp nga bindaat ko joxu la nopp nga am loo dénoncé ci biir hôpital bi joxu la nopp mais yow li la yoon may ngay def. Mhm. nga bind préavis. Mhm. ne ko man kat damay dem grève parce que déggoo ma pour dérouler. boo defee waaw amul retour. dinaa takk brassard rouge dinaa def kii pour yow nga ne ma ah moo tax loo gis dafa am fruit. Mhm. ba ñu xëccantee ci la ñu bind note nañu demee dinañ leen recevoir. d'accord donc warul woon yegg foofu. d'accord parce que ñun suñu rôle mooy toog ak ñoom discuter problème hôpital bi li ñu ñoom li ñuy gérer ñu leeralal ñu ko ñun lu ñu am suñu xalaat ñu wax leen ko point euh, euh, Mamour mu mel ni amul leen euh, problème ak direction générale mais bu ma la déggee dafa mel ni am na benn manque de communication bu jéggi dayoo entre yéen les syndicalistes ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor gestion hôpital principal waaw du manque de communication mu peut-être ñoom li may wax ci ñoom ñun suñu lancé bi ñu nekk ci la ñu nekk chaque jour. Mm-hmm. ñun ay syndicalistes lañ li may wax rek revendication moom gis nga bu ñu jeexalee bii tey suba bu ñu xëyee bindaat beneen. tout à direction li mu fi nekkee mooy chaque jour bu ñu bindee bu ñu ko bu ko bindee mu ñëw toog ak ñun lii mën naa ko lii mën naa ko lii mënuma ko lii mënuma ko lii mënu ko jóg leen dem ñu dem toogaat xool. parce que loolu lañ fi nekkee te revendication bi tamit ñun concerné wuñu ñun rek. du ñun ñun ñooy tax ñuy wax parce que li ñu am mooy hôpital ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp tey jii bu daanoo ñun ñëpp lay daanoo te boo xoolee lu day ni hôpital principal xoolal su même sous région bi dañ koy solliciter jamono ji moom mooy pratiquement boo xoolee boo jëlee hôpitalu dakaar yi lu day ni urgence 24 heures sur 24 benn euh, urgence boobu rek ngay ñëw 24 heures sur 24. muy fonctionner muy fonctionner. man ma gis nu muy fonctionner ak loolu loolu duñ ko xool ñun ñu koy nasaxal ci yooyu yo ci yooyu ci yooyu la ñuy xool dañuy xool dañuy xool ba nga xam ne direction bi léeg-léeg il faut nga xëccanteeg ñoom pour ñu mën la ne la ah ñu dellu ginnaaw alors que bu ñaanee wuñ ko noonu dañuy bëgg chaque jour communication bi di jaar yoon. waaw ñu bu ñu ñun kat bu ñu amee lu ñuy wax ñu ñëw wax ko parce que ñoom quoi qu'on puisse ñooy suñu njiit. Mm-hmm. quoi qu'on puisse dire ñooy suñu njiit ñun li ñu am mooy chaque jour li ñuy wax rek borom kër buy joxe dépense chaque jour bu xëyee ñu laaj ko moom moo samp kër chaque jour bu xëyee dinañ ko laaj. liñ koy laaj nag moom moo xam. bu ko amee mu joxe ko bu ko amul mu wax wax bu neex wala mu wax perspective nan lay kii pour njabootam. Mhm. parce que ñun ñëpp lañ njaboote mais nag njaboot gi moom il faut chaque jour bu ñu xëyee di laaj parce que yaa leen fi indi. noonu rek la demee. Euh, euh, sànq ba léegi ci say wax euh, gestion wu urgence bi. Mhm. dafay farataal di dellu ci sa communication. Mhm. mu mel ni urgence sooxe na ci hôpital bi nga xamante ne moom moo di hôpital principal wax nga ko li muy accueillir ci malade kenn mënu ko natt rawatina ci fi nga xamante ne moom moo di malade yi jóge ci sous région bi te jii ban jafe-jafe donc moom moo am ci service d'urgence bi parce que apparemment euh, ça te waaw bu may tudd urgence nag dafay deret bi dafay xaw a jóg. Ah, parce que man euh, produit urgence la urgence principale j'ai fait quinze ans là-bas. Mm-hmm. donc bu ma tuddoon ba guddi ñu jox ma bic damay dem lu ma bind du ci delluwaat. da te li ma ciy bind yëpp buñ ko toppee leçon lay doon. problème urgence principale lenn rek la. moom mooy dafa di urgence boo xam ne dafay recevoir du ventiler. et moom mu doon seul. parce que tey jii gis nga bu ñu amoon lu day ni ñetti hôpitaux yu nekk biir dakaar ñu def de telle sorte que SAU. parce que ñu bëri dañuy def euh, lanterne entre urgence ak service d'accueil des urgences. d'accord. service accueil urgence moom mooy urgence boo am. gynécologique obstétricale euh, chirurgicale trauma lépp da nga ñëw indi. il est censé recevoir urgence yëpp tey ji boo demee lu mel ni CTO ñoom dañoo am urgence médicale am urgence chirurgicale. Ah. ñaari si urgence yi dañ leen a mais tey ji boo ñëwee lu mel ni hôpital principal SAU service d'accueil des urgences lépp lay recevoir donc service biy recevoir lépp dafa soxla bu recevoir mu ventiler. ventiler maanaam mooy malade bi du fa taxaw. parce que urgence du gérer malade. Mhm. urgence rôle am du gérer malade. moom mooy médecin urgentiste bi malade bi dafay ñëw nekk en détresse war a dee wala léegi am na urgentiste bu fa nekk réanimateur. ñu non bu fekkee euh, urgence extrême urgence la urgence vitale maanaam kii bëkkanam mu ngi ci xottu gerte accident bi nga xam ne kii dafa accident tànk bi délabré muy saigné lépp bu ñëwee les gens ils sont en mesure de fair les gestes d'urgence. quitte à ce que sax réanimation médicale ñu intubé malade bi defal ko sous ventilation. Mhm. bu ñu paree ci malade bi stabiliser ko au niveau urgence def les rajo et truc parce que urgence day am rajo lépp nga ne ah malade bi kat euh, euh, stabiliser nañ ko léegi malade réanimation la. nga mhm. pousse ko réanimation. d'accord pare na foofu. Mhm. nga jot malade bii nii malade problème bu am problème cardiaque dënn bi di métti tàkk am nga ECG nga def ECG ñu ne ah. infarctus du myocarde la nga ne ah déet service cardiologie am na fu ñu war a euh, euh, centre euh, kii bi bi ñu def coronarographie bu ñu def tout récemment service cardiologie nga balancé leen ko moom mu dem ñu defal ko coronarographie hospitalisé ko foofu. Mm-hmm. nga ne nii malade médecine malade bu def syndrome infectieux nga defal ko bilan xam nga ne malade bi palu la nga orienté ko médecine. donc ce qui fait que su si o suit la logique si tout fonctionne mu am benn benn mu am benn continuité malade. normalement du def vingt quatre heures urgence. parce que urgence du rôle am malade boo xam ne day ñëw douleur léegi médecin bi régler problème am léegi mu dem. am malade boo xam ne day ñëw consultation am. mu bindal ko mu dem. ce qui fait que su fekkee ne dafa am suivi mais nag continuité la parce service yooyu ma la wax yëpp au préalable il faut qu'il fonctionne. non seulement il faut que mu fonctionne waaye il faut ñu am li nga xamante moom mooy je peux dire que ne les gens ils ont ils ont ils ont ils ont gagné le pari. Mm-hmm. mais li may ñaan damay ñaan ñeneen mooy état bi par rapport ak lu day ni SAU bu bu bu bu principal ñu def de telle sorte ko bu Dantec amee bu mel noonu buy fonctionner fan am bu mel noonu buy fonctionner CTO am bu noonu fonctionner wallahi du ñu déggati problème urgence. d'accord et qu'on les gère de tel nga xam ne malade bi su ñëwee léegi am problème urgent les gens ils sont en mesure de le gérer ils et un urgent urgentiste parce que léegi actuellement léegi bu njëkk ba les choses ont changé parce que da ngay ñëw urgence fekk fa généraliste mais module urgence léegi am na les gens ils sont en de se spécialiser où il y a des médecins urgentistes ils sont censés gérer l'urgence li nga xam ne l'urgence vitale waaw nit ñi nag tamit dafa am sénégalais yi lenn loo xam ne dañoo am problème am mooy ku feebar rek pour yow da ngaa jàpp ne urgence la mais loolu aussi sénégalais bi la wala ñi nekk ci la corps médical ñoom ñoo leen war a euh, yey wala. waaw problème terme la. <laughs> urgence problème terme la. waaw parce que te tamit nit ki tamit acceptation par rapport ak moom feebaram. d'accord parce que man tey jii man mi nekk urgence nekk accueil nga ñëw sa bopp di métti. Mm-hmm. nga ñëw ne ma dama kii comme que dans toute urgence dafa am tri service de tri dañuy wax tri. mooy ki mën a infirmier bi nga xam ne c'est infirmier spécial boo demee dans les pays développés infirmier spécial loolu rek la jàng. Mm-hmm. malade bi bu ne tak yegg si il est en mesure de dire que ça c'est une urgence vitale lii c'est une urgence relative mooy une urgence qui peut attendre moo tax boo demee urgence principale da ngay gis trois colonnes. yu bokkul. waaw verte orange rouge verte mooy les les les les urgences relatives qui peuvent attendre yeneen urgence yi nga xam ne mënuñu xaar mais mën nañu tëdd. ñu def ko attente couchée mooy rose les vraies urgences moom mooy zone rouge ñooñu bu ñëwee sapeur comme malade sapeur bu muy indi accidenté buy sañ wala truc il va directement ci biir zone bi. Mhm. donc catégoriser léegi yow imaginer en tant que sénégalais man tey ma ñëw urgence nga def ma zone vert bi sam bopp di métti ma ne la xaaral dañoo am urgence. Mhm. léegi yow tu te dis ni yow urgence nga. impérativement dañ ko impératif nga parce que urgence nga. Mhm. alors que l'urgence elle est relative. ça ci personnel de santé bi rek moo ko mën a apprécier. loolu moom mooy problème bi moo tax il faut créer des dispensaires ce genre de malade warul accéder sax hôpital. donc ñu respecter pyramide bi. waxuma la centre de santé mais case de santé sax bu fa demoon ñu régler problème am mais beneen problème. c'est une personne qui a une prise en charge imputation budgétaire la principal day fay. foofu rek la war a dem donc moo tax moo ko animé day ñëw foofu donc loolu la ñu war a sende mhm. donc la plupart problème euh, kii loolu la ñu am. waaw donc li ma la wax tamit ci problème urgence yi urgence bu nekk da ngay am capacité vingt lits moo tax man la continuité la il faut que les autres su services suivent soo amee vingt li en traumato c'est plein benn malade ñëw trauma ouvert les traumas ouverts accident de la voie publique damm damm bu toj. Mhm. loolu urgence la da nga ko war a opérer parce que boo ko bàyyee dafay infecté moom mooy urgence orthopédique léegi su fekkee ne chirurgien bi il a dit au médecin urgentiste de ne pas de ne plus plaindre parce que un médecin urgentiste du opérer bu recevoir malade trauma day def rajo consulter ko xool yeneen lésions yi pare envoyé ko chirurgien bi moom mu opérer yóbbu ko orthopédie mm-hmm. léegi orthopédie si n'y a pas de place de trauma si c'est plein le chirurgien il dit au médecin urgentiste ne plus prendre de trauma parce que amatuma foo leen teg léegi un malade qui vient qui saigne trauma ouvert da koy wax ne ko da koy jël deg ko si urgence bi mu infecté mhm. alors que boo ko am buñ ko opéré dañ ko war a dugal ci salle amuñu fuñ koy def da nga koy opéré dugalaat ko urgence waa mhm. en fonction de pathologie bi su ma jëlee urgence boobu. léegi ñu ne la demal léegi nag ñu ne la demal beneen structure balaa nga parce que fii comme que amuñu fu ñu la hospitaliser demal beneen structure ñu mën la hospitaliser mais peut-être léeg des fois tamit communication bi moo dul jàll. Mhm. wala léegi sa communication bi bu jàllee les gens ils disent que préfère soit hôpital fii laa am envie laa préféré fajo mais fii nga préféré fajo mais à condition que ñu mën la jël en charge ci côté boobu tamit dañuy rejoindre sunu ligne cri de cœur bi parce que dañoo toog kii am problème boobu noonu en temps normal service yëpp di fonctionner soo tojee di defar service yooyu nga toj ci benn wala ñaar wala leen mais ñun ay acteurs sociaux lañ dañuy yuuxul dañuy yuuxul pour dañuy yuuxul pour les les les clients. parce que xam nañ ne clients yi actuellement dañuy am problème. Mhm. bien que ne dañuy defar. Mhm. mais on est dans l'obligation ñu créer ñooñu service bu continuer bien que ne day continuer mais capacité bi day wàññeeku. capacité d'accueil lu mel ni orthopédie boo tëjee benn service rek tu crées des problèmes parce que ci hôpital bi amatoo beneen service boo xam ne mën nga leen caser même boo leen di caser service boobu donc sa capacité day day wàññeeku léegi nag urgence ngay créer problè parce que urgence dafa am nombre de lits bu muy bu muy jël su jëlee ñaari trauma ñetti trauma mu fees. léegi les gens ils vont commencer à crier ñëw naa hôpital amul place lii lii lii nii nii. vaseloo nañ ma dem naa fii dem naa loolu yëpp personnel bi ñoom ñooy recevoir cri de cœuru malade. ñoo koy encaisser ñoom ñoo koy encaisser. te ñun tamit ay nit lañ ñun ay sénégalais lañ. Mhm. duñu ay malien duñu ay ay sénégalais sa papa ak sa yaay day feebar yow boo feebaree foofu nga ko mën a yóbbu. donc yow il faut nekkul na yow sa bopp ngay xeexal yow patient boobu ngay xeexal nga war a waxal ne ko ah nañ ko nañ nañ def lii war nañu wàññi lii du. ñun bu ñuy élaborer ces choses là dañoo war a soxla ñun tamit suñuy xalaat parce que bu ñuy toj mën nañ ne ah mais bu ñu wàññee urgence dina wàññeeku de est ce que du ñu def lii est ce que du def lii est ce que du def lii parce que yéen seen xel baax na trop. Mhm. mais ñun ñëpp tamit ñun ay acteurs lañ yàgg nañ ci hôpital bi xam nañ nu ñuy doxalee lu ci nekk xam nañ nu ñu koy doxalee. Mhm. am nañ suñu mot boo xam ne au moins mën na servir à grand chose donc loolu moom moo taxoon donc mhm. côté urgence bi loolu laa ci bëggoon loolu ci. Mhm. Euh, foofu moom euh, Mamour Ndiaye euh, urgence bi moom leer na mais wax nga ko aussi toj bi toj bi bokk na yu tamit eh, ci li ngeen di revendiquer principal moom yaakaar na aussi ku ko wax dafa mel ni dañ ko associé ak brevier brevier nekk en chantier ci diiru benn wala ñaari at mais jamono ji mu mel ni chantier yooyu euh, dafa xaw a yéex euh, te ca beneen wàll wa euh, ñoo ngi tabax yeneen yeneen yeneen infrastructure wala yeneen batiment a coût de milliards mu mel ni foofu tamit continuité bi ngay wax am na lu fa sooxe waaw am na lu fa soxee comme li ma la wax rek. ñun ay acteurs sociaux lañ. bu ñu gisee xëy benn jour ñu toj benn benn mbir lu day ni brévier clinique brévier di ko defaraat. ñun au moins acteurs sociaux yi ñu doon war nañoo mën a ah bu ñu interpeller ñu wax ne ah brévier de dañ koy réfectionner mais c'est à coup de milliards. Mhm. durée d'échéance bi lii la lii lañ fay def lii lañ fay def. parce que loolu dafay dafay dafay dafay dafay dafay waaw góoral ay liggéeykat te tamit di nga xam ne yow mii kat. ci lii nga nekk nii xam nga ko mais mënoo xëy benn jour gis benn hôpital benn benn service boo xam ne pendant deux ans et lu day ni brévier parce que brévier moom tey ji du service boo xam ne ñëpp xam nañ ko am na yenn kilifa bi yoo xam ne tey ji bu am solo financement bi nan la toll xamuñu lan lañ fay def wala leen travaux yi duré lu yàgg am nañ pour mën a wax ne ah mais lii lu ko waral parce que li ma la wax rek ci njalbeen ba hôpital bi service yi muy moom mooy fonctionner mooy jox boppam du juutukaay donc boo tëjee service rek da nga koy handicapé. Mm-hmm. waaw donc bu te service bu mel ni privé nga xam ne service médecine la dafa doon rapporter lu bëri nga xëy tëj ko pendant deux ans yi mënul yegg cri de cœur la dañuy yuuxu pour wax lu tax yeggul parce que bu ñu impliqué woon par rapport ak bañ koy def ñu xam ne c'est à coup de milliard entreprise bi moo ko jël lii lañ ko jëlee durée d'échéance yi lii chaque jour fu mu toll dinañ fa xam. di ngeen édifié wu. waaw mais nag bu ñu xamul chaque jour ñun tamit dañuy yuux ba ba xam. loolu rek rek rek rek ba suñu rencontre démb am nañ ci am nañ ci tamit lu lu lu kawe sunu njort loo xam ne suñu kii bi am nañu am nañu am nañu leeral. Mhm. que euh, le directeur nous a rassuré que ne. Euh, le promoteur avait des des soucis par rapport ak yenn réhabilitation budgétaire yi ñu defoon yooyu. fi mu ne nii dans deux deux mois et truc ils fonctionnel. Mhm. donc ñu ñu jàpp loolu donc loolu léegi moo ñu ci yitteel. Mhm. parce que du ñu wax ma sàmb du ñu wax ma demb mais daal lu leerul suñu xel parce que lu ñu impliqué wul ay acteurs sociaux lañ la xool lu luñ ñu impliqué wul jàpp nañ ne tamit lii nii leerul. Mhm. te bu ñu yuuxoo ne tamit leerul nañ ñu leerala bu ñu leerala bu ñu leeralee ñun am nañ honnêteté wax ne lii. su doxee dañuy wax dox na bu doxul tamit loolu la ñuy wax démb direction. Mm-hmm. bu doxee dañuy wax dox na bu doxul tamit dañuy wax doxul parce que looloo ñu fi teg waaw ñun yow da jiite di def ñun ñu doon ay ndaw di xool. Mm-hmm. bu doxee ñu ne la waaw bu góor ni nga def baax na mais bu baaxul tamit jàppal ne dañuy wax ne la baaxul. Mm-hmm. mais baaxul bi bu ko jàppee sens bu bon. c'est dans le sens de bien faire. waaw loolu rek euh, da nga ma da ma devancer sax ndax euh, dama waroon aborder effectivement sujet boobu. Euh, jëm si daje bi ngeen am ak seen direction. apparemment daje boo xamante ne saa a tiré en longueur mais du ñàkk am na lu mu lu ñuy wax porté porté na seen fruit ça dépend ci certainement proposition yi ak débat bi ko entouré woon te jii rek boo ñu doon dellu sil ci seen daje boobu. lan nga ñu ci mën a wax lu concret loo xamante ne instant yi seen xel mun na dal ak i tamit euh, fu ngeen amee ay point de divergence bu fekkente ne am na bien sûr. waaw euh, li ma évoqué léegi moom mooy. Mhm. Euh, boo nekkee boo nekkee mbir nga bokk ci. Mm. impliqué wuñ la. dangay jàppee ne mbir mi leerul. lu tax impliqué wuñ ma ci leerul. lii dañuy bëgg naa koo xam. li ñuy wax rek discours responsable moom foo ko dégg ak di discours bu déggu da ngay xam ne lii nii dégg la li ci li ci nekk dëgg da nga koy xam li ci nekkul dégg da nga koy xam. ba ñu toogee ak moom. Hmm. waxtaan nañ par rapport ak chantier yi leeralal nañu financement yi muy def yi muy débloqué par rapport ak hôpital yi yëpp ñu ne ko nag lii lañ bëggoon parce que fii ak xamuñu ko ñuy xëy di gis ñuy toj ñuy xëy di gis di daaneel wala lenn. Hmm. dañuy jàppee ne leerul. Hmm. parce que ñun ñi ay ñun dañoo bokk ci mbir mi. donc même bunt tubaab ba ba mu fay nekk bu waree tëj benn bunt day bind note de service comme quoi que ne personnel bi bunt bi suba dañ koy tëj yéeg personnel bi organiser vous à mais loolu la euh, waaw léegi ñun bu ñu demee ba tey jii ñun ñuy doon ay acteur xëy gis benn mbir boo xam ne xamuñu nu mu demee ñuy tojandoo ay ñaari service xëy di defar lii ñeneen ñi ñu mandaté waa mais yéen hôpital bi lu xew ñun gis nañ ñii ñuy toj rek ñii nii nii ñun amuñu sax pour mën a expliquer ñeneen ñi ñu mandaté wax leen ne leen lii la. parce que xamu waaw donc loolu moo doon problème bi bi ñu toogee nag c'est un discours responsable. ki l'a tenu qui l'a tenu. on a déploré ce qui s'est passé par rapport ak euh, barki démb par rapport point de presse parce que ñun moom li ñu ko wax <coughs> kenn du ñu teree xeex. yow directeur nga gérer sa rôle directeur ñun syndicat lañ dañuy gérer suñu rôle syndicat ba mu mot te lépp lu ñu législation may dañ ciy dem. Mm-hmm. li ñuy bañ daal moom mooy def lenn loo xam ne législation may ñu ko bu boobaa bu ñu ci yeddee dinañ dellu ginnaaw il a reconnu. Mm-hmm. bi ci topp mooy chantier yi ñun hôpital lañ ne hmm, bañ fa nekkee yàgg na kuy liggéey xam nañ ku investir par rapport ak mbir leneen li ñuy wax naan lu ne lu ne fàng kenn ko jeex. et on a vu que on est en train de faire des choses au niveau de l'hôpital et des choses concrètes mais ces choses concrètes là boo ko waxul. les gens ils sont pas en mesure de du la ko waxal. duñ ko deviner duñ ko boo xëyee tey jii gis ñu indi la benn échographie bu bees fii nii te xamoo échographie boobu ndax hôpital bi moo ko financé wala dañ ko ko lebal wala lenn da ngay jàpp ne leerul da jàpp ne leerul. mais nag buñ la wooyee ñëw la ah lii kat dañ ko leboon fee ñii ñoo ñu ko lebal wala hôpital bi kat sur fonds propre fonds de lii moom moo financé boppam nga ne ah mais kon kat lii leer na lii nii la demee yow tu à l'aise par rapport à la situation loolu rek la ñun ñu am mainmise par rapport ak à la gestion te ñun ci lañ bokk gestion bi moom il faut ñu am ci gestion mooy xool xam ce qui se passe parce que li ñuy wax ne hôpital boo falee directeur ñaari at la fay def maximum ñaari at mu dem ñun ñoo fay des donc loolu rek moo ñu animé. yeneen point itam on a débattu comme rencontre bu ne parce que première rencontre bi euh, boo xoolee premier point bi c'était par rapport à la formation. les paramédicaux. bon on a longtemps décrié que ne les les paramédicaux sont laissés en rade dama lay jox exemple bu mel ni euh, la formation et learning ça concerne les infirmiers euh, d'État par rapport à, à système LMD bi parce que xam nga léegi INDSS e pratiquement formeetuñu ay euh, formeetuñu parce que dañuy changé formule bi alors que infirmiers yi ñu jot a ba pare pour ñu mën yegg au même niveau que les autres day am benn formation boo xam ne am ref moom moo koy def état bi moo ko financé. Mhm. pour leur mise à niveau après ñu ñu ñu leen. mais donc benn organisme rek la état bi jël muy am ref benn société privée la moom moo koy jël moom moo koy def. Mhm. donc état bi moo koy fay donc comme que hôpital principal moom établissement public de santé mais comme ñun pratiquement ay kii lañ bu ñu demee direction ñu ne ñu état bi moo ko yor léegi bu ñu demee ci état bi ñu ne ñu yéen vous n'êtes pas c'était sur la cohorte c'était sur pour trois mille personnes mille yi formé nañ leen ba pare ba am na ñenn ñoo xam ne reclassé nañ leen mais ñun tam du ñu xaar ba mille yooyu pare pour ñu reclasser ñu parce que ñun boo xoolee li infirmier bi di liggéey ñun ñëpp ñun ñëpp moom la ñuy liggéey on est des diplômés infirmiers yi nekk foofu tamit ils ont ñoom it ñu ñu ñu former leen boole leen ci cohorte boobu moo doon point boobu. après ñun amoon na ay démarches yoo xam ne defoon nañ ko par rapport ak am ref ak leen te leen ñun am nañ budget formation. en bref su bëggee hôpital bi mu fay ay pour ñenn ñi di fay ay éléments ba mu jeex et que la direction a accepté. il faut essayer de voir avec les autres trucs euh, en bref par rapport ak corps yi bu fekkee mën nañ am possibilité ñu ñu jël ñu former comme ça ñëli bu ñuy paree ndoo ñu ñu ñu reclasser ndoo ñëpp et c'est parce que noonu lay doxee li ñuy xeex man li may wax rek li may xeex du pour man pour ñëpp la mooy intérêt pour ñëpp parce que lopitaal bu former ay infirmiers c'est pour mu am plateau technique bu baax. tey ji infirmier yëpp bu ñu leen bu ñu leen formé ñu baax hôpital principal formé leen te ku am sa malade boo yaakaar principal nga koy indi si le personnel n'est pas formé ça pose problème. Mm-hmm. loolu rek la woon. Mm-hmm. formation bi ENDSS point boobu après dañ ko mujjee bàyyi parce que y avait des problèmes. ENDSS léegi formeetul donc ci point boobu dañ ko introduire woon parce que dañoo amoon benn convention bu ñu signé woon. Mm-hmm. donc on a dû surseoir l' point. les autres ay points wu financier la la direction. comme toute rencontre, ils vont essayer de faire des simulations par rapport et ils vont donner, donner des propositions. On va essayer de voir par rapport, d'ici quelques mois, on va évaluer pour deuxième rencontre pour voir pour ce qui s'est passé. d'accord euh, mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission bi di SOS santé tey nag ñu fi dalal ki nga xamante ne moom moo di Mamour Ndiaye Mamour Ndiaye nekk infirmier d'état waaye tamit euh, nekk chargé de la communication bu sa section hopital euh, principal bu Dakar ki seen plateforme revendicative yi Mamour bokk na ci le fait ngeen di ñaawlu li nga xamante ne moom moo di bloc opératoire bu maternité bu hôpital principal maternité principale euh, xam naa yaa ma ko gën a xam du maternité bu ndaw bu ñu demee ba yenn saa ay nag ñuy am tamit ay jafe-jafe ci wàllu woowu ndax euh, tey jii tamit euh, suñu autorités yi waruñu gën a farlu ndax maternité du du du service bu ndaw aussi. waaw loolu loolu euh, point la bu ñu yàgg xeex te xam naa ne direction peut-être démb amuñu occasion pour euh, discuter ci. Mm mais xam naa ne suñu rencontre yi ñëw dinañ ci discuter parce que cri de cœur la bu waa maternité di def. Mm-hmm. parce que xam boo xoolee configuration hôpital ni muy demee euh, réfectionné nañ euh, maternité bi avec des cabines et tout. Mm-hmm. mais seule omission bi cri bi euh, waa maternité di def sage-femme moom mooy pour ñu defal leen bloc opératoire au niveau de la maternité. d'accord et c'est c'est ce qui loolu moom mooy mooy norme loolu moom mooy moom mooy mooy mooy norme yu bees yi. parce que tey jii mënoo concevoir configuration opital ni mu demee euh, bâtiment maternité bi ni mu nekkee ak ak euh, ak ak bloc bi nga am femme boo xam ne da ko war a césarienne nga pousse ko ak ay force ak nit ñi pousse ko dawandoo wala truc yooyu yëpp ça pose problème. Mm-hmm. ce qui avancé ba nga xam ne tey jii. sage-femme bi war na disposer wu tey jii ba nga xam ne am na benn bloc opératoire boo xam ne femme bi bu ñëwee nii léegi ñu war ko césariser donc tu as pas besoin nga pousser ko pour des des kilomètres wala tu da nga koy yéegal léegi opérer ko avec un benn benn équipe boo xam ne dafa mot donc xam naa ne la direction instant bi nii ils sont conscients de la chose. parce que mhm. euh, loolu ci boppam moom mooy yóbbul kii parce que yàgg nañ koo kaas te actuellement pratiquement on a salles de bloc sont fonctionnelles. Mm-hmm. waaw donc ça pose pas de problème par rapport ak famille ñi kii mais seul inconvénient bi mu am moom mooy maternité bi dafa xaw a soree ak bloc bi. donc le fait que ngay pousse femme bi ba foofu l'idéal serait que nga def foofu bloc boo xam ne dafa yëpp équipe boo xam ne. femme bi du bouger on est en mesure ñu def seen césarienne ñoom foofu sur place donc loolu moom xam naa ne eh, ci bataille yu ñuy yu ñuy yi ñuy yeggali après ci lay ci lay bokk. parce que mm-hmm. euh, l'autorité ci boppam brosse nañ ko ko xam nañ te xam naa ne yii nii bu ñu leen mayee parce que ñun tamit bëgguñu ñu songandoo lépp. Mhm, da ngeen koy def da ngeen koy def point par point. ñu xam ne après ngeen évaluer waaw ay xeex la yoo xam ne il faut ñoom ñu ñu lijjanti ko ñu taxaw ci ñu lijjanti ko et ça demande pas grand chose. Mhm. et rentabilité la pour hôpital bi ak tamit client bi ñëw ba nga xam ne du sonn waaw. Mm-hmm. Euh, tey jii jàngoro bi di coronavirus bëri na ñu bëri ñu mu impacté certainement sax budget fonctionnement structure hospitalière yi ñu bëri ñu ngeen ñu ngi ñaax ñu ngi ñu ngi sàkk pour ñu yokkal leen ko euh, yéen euh, particulièrement hôpital principal du ñàkk ne yéen a ngi sakku ñu yokk seen budget mais tey jii ak fii jamono ji ji toll ak fii problème financier yi toll ndax jàpp ngeen ne dina yomb ñu yóbbu seen budget bi daal di koy yóbbu yóbbu ci lu tolloog euh, vingt milliards entre autres. waaw vingt milliards yooyu budget provisionnel la. Mhm. parce que boo xoolee chaque euh, lu day ne principal chaque euh, mois de novembre kii. avant conseil d'administration bi di di di di di réunir pour kii bu bees année biy ñëw dañuy def benn budget prévisionnel. Mhm. qui se tape soit ñu ne année bii di ñëw de vingt et un milliards la ñuy jël la ñu la suñu budget fii lay bëgg mu atteindre waaw donc en fonction de li ñuy li li ñuy recouvrer yëpp ci lay ci lay ci lay bokk mais boo xoolee hôpital mën na mën na mën na mën na ko yegg parce que hôpital boo xam ne la am na ay ressources humaines boo xam ne taxaw nañ buñ wutee matériel ak les conditions réunies budget trente milliards sax mën nañ ko am parce que boo xoolee lu mel ni sous région bi ay Nations Unies dañuy liggéey ak ñoom les blessés au niveau des des de des Nations Unies Mali théâtre d'opération bi les militaires yi Nations Unies yi gaañu yi gaañu ci ci xeex bi yëpp fii lañ leen di référé. Mhm. donc ils travaillent avec des des des organismes yoo xam ne ils sont en ils sont en mesure ñu duggaat ci seeni fonds. su fekkee ne investir nañ fi ñu war a investir am des ressources humaines de qualité ba pare ñu structurer ko. Mhm. loolu du doonul problème par rapport ak principal li bon moom mooy nga def ay investissement à perte mooy nga def benn rajo boo xam ne euh, dernière génération à coût de milliards deux mois trois mois rajo bi panne. waaw. amoo si si si clause yi signé woo signé ñoom ki entretien bi par rapport pendant des années ba nga xam ne yow indi dugal nga li ñu ci génne woon ba pare pour pour pour nga ñu léegi ñu ñu mën la ko bàyyi ak yow donc c'est des choses yoo xam ne il faut que ñu structurer ko ba nga xam ne looy dugg rek daf lay doon lu rentable sinon pour poser problème par rapport ak ak ak les vingt et un milliards du dara ci hôpital mm-hmm. parce que clientèle bi mu ngi fi personnel bi mu ngi fi il suffit toujours des hommes forts ak ak ak ak ak des institutions pour mun a gérer loolu mais du doon benn problème waaw. doon benn problème. Mm-hmm. Euh, lan nga ñu mun a wax euh, ci seen formation au plan de carrière euh, particulièrement ci li nga xamante ne moom moo di prime d'intéressement prime d'intéressement lan la pour mbokk auditeurs yi ñuy déglu. waaw boo xoolee prime d'intéressement. Mhm. Euh, <laughs> dafa am benn confusion bu ci nekk ba nga xam ne nit ñi yu bëri maîtriser wuñ ko. d'accord boo xoolee boo demee ay yeneen structures yi ku ci nekk am na ñoom nuñ ko tuddee mais prime d'intéressement du lenn lu dul hôpital bi su liggéeyee ba pare ba weer bi dee mu fay ndox fay électricité fay ay dépenses am ak fay ak lépp xam nga dañuy wax ne hôpital du benn am bénéfice. la muy dese lay des ca kees bi lañ ne personnel bu nekk ñu séddalee ñu leen ko. Mhm. loolu mooy prime d'intéressement. Mhm. ce qui fait que arrêté bi ko bind dafa ne mais recettes yi warul recette recouvrée yi nga xam ne recouvré na hôpital bi recouvré na ko warul li nga leen di jox warul passé vingt cinq pour cent. mais ñun am nañ ay xeex yu ñu ci def parce que ba ñuy ñëw hôpital. somme la boo xam ne fixul woon ci yeneen structure yëpp fixul woon parce que xam nga mënul fixe. Mhm. hôpital bi tey mën na tey jii mu recouvrer cent franc suba mu recouvrer deux cent donc bu recouvrer cent franc ak deux cent li ngay am ci cent franc ak li ngay am deux cent yi bokkul mais ñun suñu borom dimbale nañu hôpital principal dafa mosoon a te som boobu mu fixé woon ñun bi ñu demee bay ci mbirum xeex di xeex di xeex di xeex on a vu que ne les autres yeneen structures yi ñii ñu ngi à 17 pour cent ñii ñu ngi à 18 pour cent ñii ñu ngi à 20 pour cent ñun on n'était même pas à 7 pour cent maanaam c'était à 40 000. ñu xeex ak direction bi passé teg négociation yi teg négociation ba ñu nangu yokk bi ñu évaluer ba mu yéeg mais somme bu fixe la ñu ne maintenant on est à 11 pour cent. Mm-hmm. donc suñuy objectif li ñuy wax rek comme syndicat chaque jour. mbiram moom mooy comme les autres structures sont à quinze dix huit pour cent pourquoi pas l'hôpital principal du yegg foofu Mm-hmm. donc dañ koy tegaat sur la table direction bu ñëw ñu xeex ak moom maanaam donc am nañ ci promesse par rapport ak stimule euh, yenn yi ñuy def après ils vont faire des

presse euh, cotisation sociale yi fan ngeen ci toll au niveau donc euh, de de de SUTSAS euh, ci seen bu seen section bi. waaw au niveau de pour problème mu IPRES bi démb rek ñu ngi ciy interpellé la direction par rapport à la dette de l'IPRES. Mhm. eux ce qu'ils nous ont fait savoir ils sont en train de faire des démarches par rapport ak IPRES parce que ñoom IPRES am na lenn loo xam ne entre ñoom la dañuy liggéey ak IPRES. am na leen loo xam ne parce que ils sont à jour par rapport ak dernière cotisation yi. Ah. parce que il nous a fait comprendre que ne actuellement euh, retraités yi dem yëpp amul kenn ko am problème mu fayeeku sa sa pension. Mm-hmm. donc loolu dal na xel. après nag ñoom ñooy xool liñ leen ameel ak ñii liñ leen ameel nan lañ koy xool nan lañ koy dugalante mais ñun suñuy cri mooy chaque jour nañu verser nañu verser nañu verser pour ñu nekk à jour. structure yi moom bu ñuy liggéey chaque jour dañuy dugal li dese lii mais bu ñuy yuuxu chaque jour ci la ñuy mën a compléter. ba nga xam ne du ñu am benn retard bu ñu sonal am amoon na fi nag retard boo xam ne topp na leen ba léegi mais ñu ngi koy dugal. ñu ngi koy def ndànk-ndànk di ko dugal. pour au moins employé bi bu retraité bu demee mu a xelam mun a dal parce que dara gënul métti. nga liggéey ba retraité pour nga entrer say fonds doon problème te loolu bi ngay liggéey nga ko mën a xeex parce que dem retraite moom mënatul xeex actuellement ñi dem retraite fi mu ne nii mënatuñu xeexal dara seen bopp ñun rek ñoo leen mën a xeexal te ñun ñii tamit li ñuy xeex nañ jàpp ne buñ ko xeexul ëllëg suñuy doom duñu ko xeexal loolu dong la te on demande pas grand chose moom mooy lii lañu moom lii moom mooy suñu cër kuy liggéey dañ la war a versal parce que dañ koy dagg sa salaire nga gis ko sa bulletin nga ne dagg nañ ma IPRES mais boo ko daggee li laay war a loolu dong la. Mhm. loolu dong la. te incha allah xam naa ne on est am nañ benn commission bu ñu bu ñu créé par rapport ak suivi bi xool on va évaluer pour xool fan lañ ci toll par rapport. Mhm. Euh, du ñu terminer émission bi te waxuñu fi nga xamante ne mooy euh, fi nga bokk euh, mooy infirmier d'état yi bëri na ci ñoo xamante ne dañuy am def seen formation ba am seen lijaasa mais pour ñu intégrer li nga xamante ne moom moo di fonction publique des fois dafay compliqué ba sax tax loolu de cœur euh, tey jii boo amoon euh, benn message message booy lancé autant pour moi pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk lépp lu jëm ci wàllu wér yaram concernant le recrutement ak tamit ñoom euh, seen statut ñoom infirmier lan ngay wax. waaw foofu état bi la ñuy lu bari. Mhm. que ku wax santé. ku fu fay laalul santé. rek sa population doo mën a xam nan la ñu doon te ñun yaakaar naa ne jamono yi mujj la. ñun je me rappelle 2004 2005 bi ñuy génn balaa ngaa génn sax am nga ay proposition boobu santé bëriwul ñiy def formation bi bëriwul. mais ak prolifération école yi ça a fait que état bi moo autorisé ñu bari ñu tijji donc boo tijji autorisé ñu bari ñu tijji. Mm-hmm. mais da ngay am élément yu bëri. te soo amee élément yu bëri tey ji tu en mesure nga nga nga nga utiliser waat leen. Mm-hmm. parce que tey quoi qu'on puisse dire personnel de santé ñu ngi chômé mais tey jii boo demee dans les zones les plus léegi dafa am déficit déficit personnel donc léegi loolu man mënuma concevoir que ne mu am ay nit ñu diplômé fii nga xam ne dañoo jàngale nit ñi di jooy mbirum santé nit ñi di jooy mbirum personnel kon donc état bi moo war dimbali nit ñi ba nga xam ne lu day ni sante mais tey jii waa santé mënoon nañ koo def li muy doon waa ay ay yeneen structures yu ñoom jàngalekat yi mbir yi nga xam ne dañuy def formation ba pare dañuy imposer ne dañuy jël mais waxatuñ loolu day ni santé même structure yi ngay gis nii nii au niveau Dakar wala lenn principal ak leneen mais effectif bi dafay manqué. Mhm. parce que ratio OMS li muy laaj sax mënuñu ko duñ ko atteindre léegi yow tu es obligé de te démultiplier benn nit nga gérer cinquante malades mooy malade bi li mu war a mën a am sax yow ci bari doo ko am parce que nit rek nga te santé dafa diis a diis a diis mais jëlal exemple Covid bi amul lu gën a diis Covid. Mhm. amul lu gën a diis Covid. loolu moom nit ñi dañoo war a impliqué wu par rapport ak chose jox leen nit ñi li ñu li ñu li ñu li ñu moom man kii vous parle de Covid dafa diis man j'ai géré les cas graves Covid première vague bi pendant les six mois mais amul lu ko gën a diis te malade yi fay hospitalisé yëpp bu ñu génnee xam nañ nit ñi la ñuy dal li ñuy daj te ak effectif bu réduit mais doo leen dégg ñu ŋàng parce que lii lan la mission la buñ leen sas yow mi tey jii fii nga kii tëdd nii jomb la da nga ko war a def nga def xooloo ci ne diw ma sàmb xooloo ci ma demba au péril de ta vie. Mm-hmm. ñun ñii ñëpp ku ci nekk tey jii bi nga nekkee ci Covid wàll nga sa papa wàll nga sa yaay wàll nga sa doom wàll nga keneen mais loolu la sa mission la. Mm-hmm. ñun il nous nga wàcc sax doo mën a ñib doo bëgg ñibbi sa kër. parce que yow di nga dem ba benn instant boo xam ne yow peut-être yaa ngi nekk en contact ak maladie. yow mm-hmm. nga ne man sa xel dalatul par rapport ak ña ngay bàyyi sa kër. mais loolu sacrifice bu rëy la te personnel de santé rek moom moo ko mën. nga gis tey jii lu gën a ayib ci sa morom. mais yow sax ki mu bokkal doomam walla kii yow sax yow yaa koy gën a sàmm loolu donc ñooñu dañoo am njukkal bu rëy buñ leen waral te fii Sénégal dañoo joxul cër kiy faj. rawatina dañ leen a joxul a cër te maayo ci maayo bi ay éléments yu important lañ. Mhm. fii Sénégal la rek mais boo demee dans les pays les plus développés nit ñi ci boppam cër bi ñu jox infirmier parce que boo xoolee même le médecin infirmier bi moo ko gën a miin malade bi. jege malade bi. waaw chaque jour bu ñëwee. infirmier bi mooy wax ci malade bi médecin bi loo xam ne xamu ko. parce que moom moo nekk en permanence ak malade bi. Mhm. le médecin il fait sa prescription mu dem bu ñëwaatee examiner malade bi dem mais ki nga xam ne surveillance bi. moom la incombe mu ngi toog vingt quatre ci chevet malade bi lu mu la mënul wax ci malade bi donc loolu tamit li ñuy wax mbéjum kanam borom tamit moo koy fajal boppam. Mm-hmm. ñun tamit dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo waaw dañoo nangu trop dañoo nangu te il est temps que ñu ñu ñu organiser wu bu may wax organiser wu à travers des des des des choses boo xoolee tey ji sage-femme am nañ ordre wu nañ et médecine jamono ji fii mu ne nii moo ko laaj pas plus tard que démb rek maa ngi dugg ci benn revue gis benn euh, avis d'appel d'offres mais les gens xam nga lan la ñuy exige poste infirmier d'état mais au moins nga bokk ci benn organise structurer maanaam ordre. alors que ordre dafa am solo. parce que tey ji voilà moom mooy permettre tey ji exercice su médecine bi par rapport aux infirmiers d'état ñëpp ñi koy def ñi nga xam ne ñu ngi ci ordre bi dañ la am neen loo xam ne dañ leen di canaliser képp ku ne infirmier d'état nga da nga a exercice da ngay dugg ci ordre bi ordre bi moom moo lay wax fi ngay def boo amee problème tey ji moom mooy taxaw am na leen loo xam ne bu bëggee def dérive ordre bi moom mooy taxaw mais nag d'après combien d'années au pas des décours décret bi alors que c'est des choses yoo xam ne ça pas grand chose au sax état bi moom moo ko waroon exiger nit ñi yombal leen ko ba nga xam ne c'est structuré am na yenn yoo xam ne bu ordre amee ordre des médecins wala leen boo xoolee c'est bien structuré ordre des pharmaciens et pourquoi pas ordre des infirmiers depuis combien d'années donc il faut nga am benn mbir moo xam ne moom ngay xeexee moom nga am doole moom ngay xeexee waaw mais boo ko amul ñii jaar fële ñii jaar fee ñii jaar amuñu considération duñu mos a am considération mais tamit nit ki moom li ngay wax rek sa bopp sa image yaa koy forger sa bopp mm-hmm. sa image yow yaa koy forger sa bopp nekk infirmier d'état mooy dangaa am xam-xam boo xam ne tu es censé da nga koy jox nit ñi te xam-xam boobu sax daf la propre infirmier d'état bu ñu respecté trop du liggéey ak médecin mu yàq ko parce que le rôle d'infirmier d'état les soins infirmiers lui incombe moom dong moo ko jàng infirmier soins infirmiers infirmier bi rek moom moo ko jàng médecin bi infirmier bi moo koy former à partir de la deuxième année au niveau des soins infirmiers. Mm-hmm. kon donc yow kooku boo bàyyee ba mu jàng moom mu deuxième année mu ñëw yow nga former ko au niveau des techniques de soins infirmiers moom mu génn ba yàlla def tey ji mu tees nekk docteur mu ñëw nekk sa chef de service ngay liggéey soins infirmiers mu lay corriger par rapport ak soins infirmiers bi bàyyil soins infirmiers. moo tax loolu moom mooy indi ma ne la sa image yaa koy forger mooy li nga doon. Mm-hmm. tey médecin bi la. daf lay bàyyil sa cëru mooy sa chef de service mooy sa chef de service par rapport ak service mais soins infirmiers yow la bu ñu dox lu ñu service moom waru mën a wax loo xam ne yow xamoo ko boo demee ba mu lay corriger ci soins infirmiers bi donc moo tax am na leen loo xam ne part des choses bi am na ci ñun am part de responsabilité bu rëy mm-hmm. mais tamit li ñuy wax rek ANIDES am na leen lu ci liggéey yoo xam ne ci perspective bu daaw yi ñu ngi gis nañ ne changé nañ ay mbir nañ nouvelle génération bi am na ay têtes yu bees yoo xam ne ñëw nañ 209. li waaw ñun lu ñu lu ñu manqué moom mooy da ngay gis benn mbir boo xam ne benn paa moo koy nekk cinquante ans yor ko rek du bàyyi xale yi amul benn esprit d'initiative mhm. yooyu yëpp ñu ngi xool ne mu ngi mu ngi deñ si mu ngi dëñ si parce que séminaire bi mu mujjee dem on temps vers benn ordre des infirmiers ñu ngi ci on est en train de a des experts yoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci xalaat décret bi peut-être sous peu comme sage-femme yi dina génn ñu mhm. ñu encadré ko mhm. après ñu mën a ñu mën a ñu mën a ñoo au moins sax wet mhm. mu mel ni am na ay acquis yu ngeen euh, commencé am yéen yi nga xamante ne yéen yi infirmiers euh, yi waxtaan wi am na solo mais dafa mel ni lu ñu cëraloon ci waxtu bi daanaka euh, jeex na waaw bon liñ ko waxee rek mbir mi moom jot bi du euh, temps bi du mos doy pour ñu ñu conclure parce que mbirum santé moom buñ koy wax yaakaar naa ne mën nañ xëy di wax suba ba ngoon jot. parce que ay acteurs lañ yenn yoo xam ne dañoo def santé par par amour par conviction defuñu ko par moom moo fi sës ñu def ko. donc moo ko tax buñ koy wax dañ ci dañ ciy nekk trop à l'aise parce que tey jii buñ ko defoon ngir leneen am nañ possibilité bàyyi ko fi pour def leneen. Mm-hmm. mais ñuy wax ne maladie moom moo ñu yitteel. et que seul maître mot li ñuy wax moom mooy nañ jàpp ne li ma sama benn professeur doon wax soo utiliser benn sooy utiliser benn matériel si malade boo paree premier chose pour mu mën ko entretenir jàppal ne prochain malade bi man la sama papa la walla sama yaay la walla sama doom boo amee esprit boobu ci sa xel rek malade bu ñëw di nga ko jàppee comme yow di nga ko toppatoo di nga def li war ci moom. Mm-hmm. sans arrière pensée. Mm-hmm. loolu moom mooy médecine donc mbir la benn boo xam ne dañ ci am bu ñu ciy def mu am nag ay ay déq-déq yu bëri di métier boo xam ne bu ingrat mais nag comme li ma wax rek boo ko defee par amour moom loo ci gisee da ngay jàpp ne lii ci soo yoon la nekk waaw parce que c'est pas c'est pas facile ngay gérer nit kuy souffrir c'est pas c'est pas c'est pas facile. parce que ku ci nekk bokkul ku ci nekk sa sa sa mét sa métit ni nga koy exprimer bokkul loolu sax dañ la koy jàngal école ku ci nekk ni nga koy gérer par rapport ak métitam mais loolu yëpp ci ci métier bi la te ñu ñaan nit ñi tamit ñu gën ñu jox cër gën a comprendre communication bi tamit di gën a jàll par rapport ak structure loolu rek moom mooy problème structure mooy communication bi léeg du jàll di nga gis kenn koo xam ne day wax sax loo xam ne du mbiram maîtriser wu ko mais ñàkk xam la mm-hmm. yow personnel da ngay dégg li muy wax rek ngay xam comprendre automatiquement li mu bëgg expliquer mais nam koy waxee la interprétation waaw mooy poser problème waaw moo tax bon mhm. dañuy sant yàlla mhm. di la gërëm di la sant ci invitation bi euh, bëggoon nañ mu gën a gudd lii ba ñu gën a mën a dugg ci yeneen mbirum problème mu santé parce que li ñuy wax rek suñu sañoon suñu santé Sénégal mooy gën ci santé yi mhm. moom moo war a mën a gën sax leen rek moo moo des mooy volonté parce que euh, bopp yi ñu ngi fi xam-xam bi mu ngi fi parce que ñi yor santé fii Sénégal dañuy génn ci biti dem génn fa major seen promo. Mm-hmm. donc ñooñu bu ñu ñëwee nekk fi chef de service donc la doon promo major fële mën nañ ko def donc lu fi des ay structure mm-hmm. équipé ko teg ci ay nit ñoo ni ñoo xam ne ils en mesure de gérer. les la place qu'il faut man se cri de cœur bu may jox moom mooy ñu ñu ñu ko ko ko qu'on au niveau de la santé tabax ay ay hôpitaux yu bees dernière génération indi ay nit ñu crédible ñu teg leen ñu mën a gérer personnel teg fa des personnels qualifiés mais on avance loolu rek la am na leen loo xam ne mu ngi dugg feneen buñ ko investiroon mën nañ am mbir mu ndaw par rapport ak lu évaluer par rapport ak santé bi mais nag buñ ko defee feneen après ñun ñooy yuuxu rek personnel de santé lu mu foor foor foor boo ko tegee pour mu faj amul lu mu mën a fajee xam-xamam. jariñu dara théorie rek du faj de. Mhm. théorie rek fajul. Mhm. dafa am ay juutukaay yi nga xam ne yooyu fajee te juutukaay jamono li juutukaay yi dañoo rawante. dañoo rawante ñun ñii sax fi mu ne nii infirmier booy yi mujjee génn nii dañuy ñëw di ñu wax leen loo xam ne ñun xamaguñ ko. moo tax chaque jour tu es obligé da ngay recycler wu chaque jour ngay recycler wu léeg nga defoon benn technique boo xam ne soins infirmiers jàngoon ko da dugg ci internet bi liiraat gis ne les techniques ont changé mhm. de parce que c'est le monde qui moom moo évolué wu mhm. donc ñun nag les matériels bi ñuy liggéey yu obsolètes ñu dimbali ñu ci ñu changé ko parce que lépp bii bi yëpp lan la parce que jàppal ne tey ji santé bi ñun buñ ci œuvré wul man ëllëg bu ma feebaree ba doon mag maa ngi xalaat ne fañ may tëral ka li ma sama benn professeur doon wax rek ndeysaan moom tamit booy former nit former ko bu baax surtout santé booy former fajkat former ko bu baax parce que xam nga lu tax mën nga feebar ëllëg daj ci moom soo ko joxul woon xam-xam bu baax la ko jox rek la lay fajee loolu rek la lay fajee moo tax quand tu il faut bien former et quand bien surtout santé tey ji kooku bu mujjee ci yow rek nga féex boo nee tëll xam ne yow mi joxoon nga ko xam-xam nga feebar sa xel day dal loolu rek moo am solo donc jërëjëf foofu la ñuy terminer. <laughs> Euh, waxtaan wi na solo lool mais comme niñ koy waxee rek li duus aborder yeneen sujet yu gën a yu gën a diversant jaajëfal ko moom bu baax a baax moom Mamour Ndiaye Mamour Ndiaye nag ma fàttali ne moom infirmier d'état la waaye nekk chargé de la communication SUTSAS section hôpital principal bu Dakar te ji nag moom lañu doon dalal ci suñu émission bi di SOS santé SOS santé nag Fatou Baba Fall moom moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy moom moo nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen déglu bi